asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme ça su ne ni ngeen koy defee seen dundin ak seen nekkin choisir chaîne askan bi la chaine leader Dakar People ñuy ànd ak yéen di siiwal di feeñal ak woyale borom xam-xam fépp fu mu nekk ci biir réew mi. te nag amoon nañ contentement ak mbégte beneen yoon dalal kilifa. boroom xam-xam bu kenn dul naatable jàng ak jàngalekat ñu xam ko ci wàllu jàngale mu yor ab daara bu mag fële ca Touba ñu gën ko xam ci Serigne naa Alxuraan te ku ne Serigne Cheikhouna Alxuraan wax Serigne Sidi Mokhtar ndaxte kooku jëmm jooju nen mun nañ ni moo ko tudd moo ko yar moo ko tarbiya Serigne naa Alxuraan nuyu nañ la. waaleykum salaam wa ta basmalatan tajalanillahu biha jarallah wa mulasiman li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ama baad ayyuhal muslimun wal muslimat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibé yi ñoo ngi leen nuyu bu baax te di siyaar kenn ku si nekk ñu ngi lay nuyoo gën ngaa nuyu gën ngaa rafet nuyoo di nuyu ak cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifatu am li taifati muridiya di nuyu suñu bunt si kër cheikhul xadim cheikh Moustapha ibnu cheikh Sidi Muxtaar di nuyu mboolem xalif généraux yi si biir adduna bi ak yi si biir bitim réew di nuyu waa réew mi waa bitim réew di ñaan suñu borom def si réew jàmm ok bisimilah. ñu ngi lay fay Serigne Sidi Serigne Cheikhouna Alxuraan tey nag ñu set si la pour am ak yow waxtaan laaj ak tontu waxtaanee xam-xam waxtaanee pàcc yu bëri ci mbiru xam-xam bi tey suñu question bu njëkk rek balaa ñu dugg ci waxtaan bi bëggoon naa tuuti nga ñëwal ma lu waral ñu lay dàkkantalee Serigne Sidi Cheikhouna Serigne Serigne Cheikhouna Alxuraan. ok mbokk mi laaj nga laaj bu am am solo si Cheikhouna Alxuraan képp koo xam xam ni. Euh, taalibab Cheikh Sidil Muxtaar la léppam di Cheikh Sidil Muxtaar ndax yàlla dafa dogal si ëttam lañ gën a jamono bi gën a jamono moom moo ñu tudd sakku ñu tur tudd ñu jëm ju sell ja wax yi ni ñu woowee seexu naa waaye nag ginnaaw bi euh, demee ba toll si ma tax xamlu mu yóbbu ñu daari xelkom sëñ Saliou ñu nekkoon daari numéro 10 foofu na lañ jàng jowoon alxuraan yàlla def nag man demee ñu def ay at yu néew suñu borom def suñu alxuraan

macha allah mhm. Serigne Cheikhouna alxuraan leer li am na solo trop macha allah daanaka sa diggante ak kenn doot ko lam-laamee ndaxte comme nuñ ko waxee dàkkantal bi rek wane na lépp sa sa lépp da ko jox delloo ko alxuraan comme ni nga koy waxee ba nga nekkee ndaw nga wattu alxuraan macha allah ba tey jii tamit suñu borom defal la ci jagle nga ay kéemtaan yu doy macha allah. Serigne bi bu ñu paree ci loolu comme ni ma ko waxee tey dañ la seet si pour am ak yow waxtaan laaj ak tontu waxtaanee xam-xam. waxtaanee tamit jafe-jafe yi nga xam ne jaamu yàlla dañ koy faral di jànkonteel te saa su ne bu newee gàllankoor ci ñoom seen xel du jug mukk si jëmm bu mel ni Serigne Cheikhouna Alxuraan pour saafara tey Serigne Cheikhouna Alxuraan suñu question bu njëkk bëggoon naa ñu taxaw ko ci wàllu seet ndaxte boo nee asraar yaakaar naa buntu bu njëkk ci wàllu asraar mooy mbiram seet. Mhm. Serigne Cheikhouna Alxuraan tey soo ñu doon wax ci tënk ak leeral. Mhm. lan mooy déggi déggi seet. Mhm. ana lan mooy njëriñal seet ana yan buntu la Serigne naa alxuraan am ci wàllu seet. ok euh, seet googu day loo xam ni daa mënul ñàkk si lépp lu mën a doon si adduna waaw nit ki booy xëy di voyage sax wala nga xëy di génn sax war nga war toog nga xool ko suñ mag ñu baax ñi buñ mësaan bëgg bind téere balaa ñu say jublu dañ koy xool ba noppi ba xam nan la suñu borom bëggee téere bu dëppoo nii kon nag sëñ bi seet day loo xam daa mënul ñàkk man nag bépp aajo ju mu ni ak ju aajo ju mën a doon balaa mu si sóobu dama ko xool ba noppi ndax du ma làmbatu sax dara si adduna lu mu mën a doon dama ko làmbatu waaw ba aajo ju a doon bu mu mën a doon bala ma si sóobu dama dama koy dama koy xool mm-hmm. nit ki bu ñëwee si man li ma koy njëkk a defal tur wajuram bu jigéen mm-hmm. waaw xoolal ay mbiram ba pare doo ko a lépp nga xam ne a yombal si mm-hmm. mbir xam it ay gàllankoor bu fekkee ay gàllankoor daa nekk si ma mën ko xam loolu xam ma la mën dama si dama si morom ko yàlla bi ne seet si xaar macha allah waaw si morom kenn waaw dama si mhm. macha allah Serigne Cheikhouna Alxuraan leer li am na solo trop yaakaar naa loolu moo nekkoon tontu bi ci mbiram seet te képp ku la xam-xam ne sunu borom defal naa la jagle may la ci loxo bu gudd macha allah tey jii mun nañ ne Serigne buñ taxawoon yaay doon seen ambassadeur si wàllu seet ndax jagle bi la si sunu borom defal macha allah Serigne bi bu ñu paree ci loolu bëgg naa tuuti ñu waxtaanee mbiram kaaraange ndaxte Serigne Cheikhouna Alxuraan jamono ju nekk nekk na jamono def-def nekk na jamono xat-xat. donc njëriñal kaaraange nekk na lu am am solo comme ni ma koy waxee saa su ne nit ku nekk ñama nga wax que ni man du ma def nit lu bon mais kenn sañul wax ni man nit du def lu bon donc njëriñal kaaraange nekk na lu am solo Serigne Cheikhouna Al Khourane lan moo dox sa diggante ak mbiram kaaraange. ok laaj nga lu am am wàllu kaaraange googu laaj kaaraange nag loo xam ne dafa mënta ñàkk si àdduna si ki ku mën a doon muy ndaw ak mag mais képp ku mën a doon kaaraange mënta ñàkk si yow nit loo mën a yor maanaam te yoroo kaaraange jàpp ne yoru ko dara ndax nattu mën xeexee dal sa kaw jafe-jafe nag fi ne nii adduna bi gis ngeen ni mu lépp nag manqué kaaraange bokk na si sabab ndax jamono ji adduna bi fi ne nii dafa mhm. a a dara te mhm. la mën a li la mën a muccal mooy fexe ba am kaaraange rek mhm. moo la mën a muccal kaaraange nag am na yu xam nga yaa ngi dégg yu ñu wax jajjikuta jajjikuta yaa ngi koy xam nga ko wala xamoo ko waaw jajjikuta mooy maanaam teen boo xam ne ko doon gas maanaam gas ba mun ñoo jot ndox léegi xeer yooyu fa jot génne dinaa si defal kaaraange sëñ bi gu yéeme yéeme képp ku ma ko defal boo ko boo ko ko tudde bokkub kilif laa ko nag kilifa gu a moom ko jox waaye fas googu yàlla dogal ba nga am na laa limal mbir yu bëri moom suñu borom dana musal benn bi si jutu muy maanaam doo faatu si lakk mm-hmm. mukk si àdduna sogit suñu borom si musal boo ko takkoon nii nga xaw nga war a voyagé mhm. comme nga war a génn suba nga war a yëg si oto mhm. a am natt daa war a mhm. waaw boo ko takkee boo génnee réew mi mo donte da ngaa nekk bitim réew foo mën a nekk maanaam doo doo deewe mukk si da nga dis sa njaboot euh, maanaam moom moom moom mën nga ko ba wutati fenn si adduna waaw képp ku la jëmale liggéey day yàqu waaw nit dootul mën a liggéey mukk mukk mukk si adduna boo ko amee da ngay tësi lépp mm-hmm. wokkub lam boobu waaw xam nga wokkub lam nag boo euh, wokkub lam ko daan wax wokkub lam boo ko déggee xam nga ab lam boo ko takkoon nit ñëw di wokk si lam bi ba suba du mën mm-hmm. wokkub lam mm-hmm. waaw lam bi nag lay waaye du egg si yow mukk noonu la ko tuddee waaw wokkub lam macha allah sëriñ waaye kaaraange moom féete ko kaw moom macha allah sëriñ Cheikhouna alxuraan leer li am na solo trop macha allah daanaka mbirum kaaraange comme ni nga ko waxee léegi sunu borom defal na la ci ay moom yu bëree bëree bëri bu dee fas googu li ñu la njëkk a limal muy muy mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. a wax gee ah. moom boo ko sangoo lépp lu mu fekk seen dana ko dindi muy caat ak nag liggéey bu mu mën a doon te boo paree mu aaro nga moom waaw macha allah Serigne Cheikhouna Alxuraan leeral li am na solo trop yaakaar naa ni ci partie boobu laay continuer tuuti ñu xus si Serigne bi mënuñu waxtaanee mbiram kaaraange te ñu waxtaanee mbiram ubbeeku. Mhm. te jaamu yàlla bu mucc. Mhm. da nga bëgg a mos te jamono yi ñu nekk sëriñ bi nekk na jamono koom-koom. Mhm. jamono am-am donc njëriñal ubbeeku nekk na lu am solo. waaw ubbeeku it euh, suñu borom dimbali a baax ndax sangat goo xam ni yaakaar naa ñi si ñi si ñu bëri bëri xam nañu ko sangat googu ñu nga sangoo diiru juróom-ñaari fan. waaye boo ko sangoo de sëñ bi dana la wut si lool xéewal dana la wut si lool te ubbeeku sëñ dafay nekk loo xam ni daa mënta ñàkk rawatina si ndaw nit ki toll si doo bàyyi sa bopp nit da ngay farlu sa bopp boo tollee si si wut ndaw a sa bopp boo tollee si wut da ngay wut ay musluwaay fexe bay wut ay ubbeekaay ndax daa mënta ñàkk wàllu ubbeeku nag nit ki bu ñëwee di ko jàmbat faaw nag da koy xoolal ba noppi comme la ma waxoon léegi uh, nit ki moo koy defal ku nekk dafa am a ubbee doo topp yëkkat dara jox ko ne ko dama sangu déedéet man nekk ma sëriñ bi làmbatu de lépp lu ma doon dama koy xool ba mu leer nañ sëriñ si bëree bëri dañ ngay ñëw ñu yëkkat dara benn ubbeeku lañu yor wala benn bayre ku ñëw yëkkatoo jox la mën na doxewu ma noonu mhm. nit ku ñëw fa nga toll laay ànd ak yow mhm. dinaa xool sa tur xam sa nit xam tur ni ni mu wute doomu aadama ni ñu wute mhm. noonu la euh, liggéey yi di wute tàgge boo dégg day am jàppal diw yëruma benn bayre rek ku ñu may wax nga sa nga sangu déedéet nit ku nekk sa bayre bopp ñaari nit bu masalan ñëw si man di bokk lu ñu sàkku maanaam comme masalan ñaari nit ànd ñëw euh, bokkuñu tur ñëw bokk lu ñu sàkku comme ku ñu defaru bayre bu ñibbi duñu bokk ñu ànd duñu bokk lu ñu ngàbb waaw man nag li may liggéey dama seen nekk lu may lamb dama ko xam

daloon dañ ko xam bu baax na sëriñ si bëree bëri fi man maa leen sang maa leen ñaanal man mm-hmm. sëriñ si bëree bëri bëri bu ñu bëggee sango dañuy ñëw fi bëri dañuy sango mm-hmm. ndax li ma suñu borom may xam nañ ko te nangu nañ ma ko mm-hmm. loolu nag yàqul yàqul dara waaw dañoo dañoo nangu dogal suñu borom moom bokk na si jaamu yàlla ñoom nag xam nañ ko te nangu nañ ko bu baax alhamdulilah macha allah sëriñ Cheikhouna Al Khourane leeral yi am na solo loolu moo nekkoon tontu bi ci wàllu ubbeeku bu ñu paree ci mbir moomu sëriñ bi bëgg naa tuuti tamit nga ñëwal ma ci wàllu nopp tasxiir boole ndaxte daanaka mun nañ ne des fois day xaw a am ay lënt lënt day xaw a am ay wute yu bëree bëri ci wàllu ci pàcc boobu noonu sëriñ si yu bëri dañ ciy xaw a juum ñii dañ ciy d' accord ñii duñ ci d' accord tey jii lan mooy dëgg dëggi nopp lan mooy njëriñal nopp tey jii ana yan buntu la sëriñ Cheikhouna alxuraan am ci mbiram nopp. waaw nopp nag bu dëgg yàlla dafay loo xam ni man ba ma nekk daara laa commencé fowee. Mm-hmm. waaw ba ma nekk daara du tànk lañ ma commencé liggéey ba nga daan fowee. Mm-hmm. Euh, ma xamal la lenn si man. mënumaa toog fii comme fii ma waxee mënuma laa wax man kañ laa commencé ñaan yàlla mhm. ba ma xamee ko ba léegi si daara ji dañ ma daan ñaan loo mhm. ndax euh, bu dee ma tëb tëb defal la nit nopp déedéet soo ma bëgg bëgg ko soxna dama ko dañ koy xool ba noppi ndax ëpp sëy dañ koy xool mhm. waaw li si xool da ba gis seen seen mbir dëppoo na seen tabi dëppoo na ànd nekk dana nekk sa soxna kenn mu la ba doon sax doonte ay wajur dañoo bëggut yaayam bëggut moom sa lëf ñëpp dana bëgg bu soob yàlla waaw bu dee am na si boo xam ni ñaari ñaari aji ñoom ñoom laa ko loolu sunguf lay doon sunguf mm-hmm. loolu mu yàqu yàqu yàqu vingt-quatre heures du mm-hmm. mukk si àdduna mm-hmm. loolu sunguf kese la sunguf su ndaw lay doon xam naa ku ma ko jox sax ñu bëri ba su ma jox da leen yéem lool sëñ lii lan la da leen yéem <laughs> waaye demal nga jëfandikoo ko rek wen mm. quatre heures ba ko mën mukk da nga ma woo da nga sant mm-hmm. muy sungu soos ma xam ne nopp moo ko tax jo nopp sëy bu jaxasoo mm-hmm. sungu soos ko jox ña nga xam dencante wuñu déedéet a nga ko a jë waaw moom moom nga ko mën a defal mm-hmm. waaw waaye nag moom vingt-quatre heures du nga woo sant léeg-léeg nit dañuy fi ba jox ko maanaam day si dama koy xool dama gis da koy xeeb daal si sa li ma koy gisee nii waaye bu ma ko laalee danga xam ne mbir la na waaw ma xam-xam sëñ bi maanaam sekk la rek leerali am na solo trop bu ñu paree ci mbiram noob sëriñ bi bëgg naa ñëw ñu ñu ñëw ci daj tëpp gi. Mhm. muy wàllu néew kattan. Ah, te sunu borom defal na mhm. ci jagle bu. am xam mhm. solo macha allah nga yor ci ay siru yu wér a wér a wér bi. mooy secret bi nga làmboo ci mbirum néew kattan. waaw ah, kooku moom dafa si sawar bu baax a baax dëgg yàlla euh, dañu si amul ndimbal bu baax a baax a baax xam ko lool ndax loolu yi dañu doon loo xam dañu gëstu trop man lépp loo xam dafa maa ñor damay dem gëstu ju ko ba ma jógee sa daara ja laata may samp daar am na mag ay borom xam-xam di di leen tarbiya ngir bëgg si ñoom xam-xam yaa muy dégg bu baax a baax mm-hmm. xam-xam wàllu nekk dama si yu bëree bëri yoot ne nii am na produit boo xam maa ngi liggéey sama loxo bopp produit mm-hmm. li a jóg muy a a jóg mm-hmm. loo xam ne sëñ bi euh, nit ki nga xam ne daf koo gaar sidid xam awra sidid la sidid moom mën naa fasu nit ki rab mën na koo téye wala sëriñ bi ñu bëri yokk awra nekkul lu wér loolu amul si laa jëm ni damay leeral boo déggee ni yokk a amul maanaam dafay nit ñi dañuy feebar xam nga feebar fi la fekk fi la bàyyi feebar de a mm-hmm. moom siddi mm-hmm. euh, na mu war a dollu mm-hmm. waaye nag comme ni ko suñu bind nii nga nii la toy nii moom nii la ni nga ko judd waa ko yokk moom déedéet ki nga xam dem ba awraam feebar ba feebul xaw a dellu ginnaaw wala mu dem ba nga xam ni maanaam buy bëgg buy jaxasoo awra bi day xaw a nooy du dëgër na war a dëgëre yaa ngi may dégg baax a baax mhm. xam ni que day dem tool day dem tool foo ko daanaka a dëgër day mhm. a baax day mhm. a dellu dana ko dimbali a toll bu dee koo xam day gaaw minutes rek nga gis résultat du mu ne la tey du mu ne suba 30 minutes waaw nga koy jëfandikoo léegi sunguf su la mun amul lu may joxe garab yu naan te du lu weex du doon loo xam ne lu lay gàllankoor si wàllu santé la wala sa wér-gi-yaram déedéet loolu xam-xam la boo xam ne dañ ko gëstu bu baax a baax man dama joxe genn garab gu weex déedéet waaw waaye garab gu néew kattan googu moom ku ko jëfandikoo 30 ko soxnaam képp ku ma woo di ko jàmm dama la ana soxna mi nga yow ba ne mu ne waa ma nga waa kon baax na waaw am na si yeneen yoo xam ne xam bu leen xool dañoo xaw a feebar di leen defal traitement waaye comme daa néew kattan rek amul benn jàngoro garab gi laa ko sungu soos bu ko naanee 30 dana gis trente minutes la trente xam loolu moom laq duwul trente minutes ko te du une semaine trente minutes nga gis nga gis njëriñ léegi waaw mhm. loolu da ngaa dem ba yëkkatoo dara sax trente minutes laay boo ko naan da nga gis résultat macha allah Serigne Cheikhouna leer li am na solo trop mhm. macha allah daanaka bu ñu paree ci mbirum nopp tamit dinaa ñu nga xam ne dañuy faral di am jafe-jafe gàllankoor ci mbiru fay bor xataa ñu am ñoo xam ne nii comme dana rawatina des fois yi gis ay commerçant ñu jël seen ay alal investir lu bëri bëri ci wàllu commerce ñëw jël seen ay produits leble ko ñu wëlbatikuwaat nit yi am gàllankoor pour fay leen wala nit tamit tey jii dina nekk ci ay jafe-jafe am problème bor bu ko fay mu nekk gàllankoor ci moom. sëriñ bi hmm. li ni mel lan moo ciy saafara. daanaka loolu sax muy wàllu feebar boobu nga wax dama siy dimbali ñu bëree bari ñu bëri ba daal du ma si laaj dara ndax loolu dafa xaw a métti. Hmm. liggéey sa alal ñax ko ta nga moom ko. Hmm. nit àbb la ko nga yëkkati am xol a muñ alal jooja jox ko mu faj soxlaam amul lu mu lay fay lu dem ba war laa fay du la jox sa xaalis xam loolu dafa métti mm-hmm. waaye nag képp ku ma ko jàmb nag balaa ma si def lenn damay xool kan kan ko xam na lu mu la la fayee mm-hmm. bu dee xaalis boo xam ne dafay si mbirum këyit ak yooyu noonu ma dala yore la yore yor nag mën na la ko fay la ma lay def su ma ko defalee balaa ma def vingt-quatre heures dana la fay sa xaalis mm-hmm. ndax la may def moom su ma defee li fekk duxul xaalis sabab na ma koy xool ndax su ma ko xoolee bu fekkee xool ma mu ñëw rek mu dafa ko loola te fekk kooku yurul mu ko fayee masalan yow nga réeral ma téeméeri junni war ma ko fay te yuroo ñaar ko la fay wala yurul ma la fay ba moom xoolee ba mu leer ne yoroon lu ma la lay defal bu soobee yàlla vingt-quatre heures bu ko wat moom hmm. du am jàmm bu ko fay du am jàmm hmm. waaw loolu la ma dimbali ñu bëri ba ndax loolu dafa metti comme ni ma la ko waxee léegi li koy sax alal moom mu leer la domm nit ñu abbaloo ko lank ne du ko fay loolu dafa métti mm-hmm. ba si ñi xam ne dañuy yor ay teer euh, këri jàmm tëdd si wala yor ay teer jàmm tëdd si bu ñëwee dana si baax baax baax nit moom a fexe ba jot sa alal nit mm-hmm. ma am fula na si fexe lijjanti sa alal si yow si yow mm-hmm. macha bi leer am na solo trop bu ñu paree ci loolu sëriñ bi bëgg naa tamit ñu def benn taxaw seetlu si benn jafe-jafe dañuy dañuy faral di gis des fa nit dana xam xalal bu bëree baree bëri ñu jékki-jékki rek gis nii daanaka alal googu yëpp day naax saay. Mhm. wala nit ñi nga xam ne des fois dañuy am jafe-jafe lu ñu yor. du toog mhm. seen loxo. Mhm. sëriñ bi li ni mel lan moo koy waral ak lan mooy saafara. loolu nekk a taxawal dara duñu a téye dara ba xam na sabab waaye jaaro bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey dara dox si ubbeeku waaye am na si jaaro boo xam ne kaaraange la am na si jaaro boo xam day téye sa alal ba doo ko mën a sàng doo ko mën a yàq rab du si dara nit du si dara waaye ñi nga xam ne dañu amoon alal dem amatuñu alal ñi daan dégg dama ba dégg ci ne loolu yi ko war dafa dafa bëri rab mën na laa topp di la gàllankoor wala ay liggéey wala ay cat cat dana topp nit ba tax na naa am lépp adduna li si bi ay du sa jëriñoo dara du mën a taxawal dara loolu lépp nag képp kum gaar ba ñëw fi dana la si dimbali bu baax a baax a baax waaw bëri nañ ay borom alal yoo xam la ñuy yore mhm. a a a baax mhm. mhm. dem ba sonn lool sax jox lépp loola waaw macha allah Serigne Cheikhouna Alxuraan leeral li am na solo trop macha allah daanaka waxtaan bi am na solo trop te mu ngi bëgg a gudd te waxtu nekk na li nga xam ne xaw na la tënk. Mhm. mais sëriñ bi mënu ma la seet te du ma waxtaanee te du ma la laaj benn question boo xam ne constat général la dañu gis ni nii guddi ñu toll jafe-jafe yi day gën di bëri. Mhm. sëriñ si di gën di bëri. Mhm. te saafara daanaka. du jógee fu ñu ko foogee sëriñ bi loolu. luy luy luy luy usul bi lan mooy masala bi lan mooy. lan mooy saafara bi lu waral loolu tamit. li nga wax nag lu wér la dëgg la. sëriñ si bëri nañu lool waaye nag gis naa ne jàmbat yi ak tawat yi dégg ni bay waaye nag tawat yi jàmbat yi dafa jóg mukk adduna nga loolu an laqad xalaqna l'insaana fii kabadin la ko suñu borom noonu la ko suñu borom euh, euh, tërale jafe-jafe yeeg jànkonte yi mën na fee jóg waaye nag euh, mën naa wàññi ko baax a baax nag nit ku am gàllankoor xoolal am a ràññe am xàmmee xool si sëriñ si bëri na lool waaye nit ñi ñoo war am ñoo am ak yewte xàmmee nit ñi bu baax a a baax waaw nit balaa nga yëkk sa alal bu baax xam ko bu baax a baax a baax a baax

jafe-jafe bëri na waaye nag waaye nag sëriñ soo sëriñ soo ñu si bëri dañu am jafe-jafe ndax euh, li xew si sëñ boobu gis nga ko bëkk démb mhm. ba njaay li ñu koy wax xuma mhm. kooku fi mu ne loolu la ko la ko def noonu du neen xabtal la mhm. ndax ku gën day xat géej gi bakk muy xat géej gi bu kare ba kare nga xagee gilaaw laa wax mhm. loolu lépp li nekk doon loo xam ne maanaam ak neen la mhm. nit ab sëriñ sëñ dafa nekk loo xam dafa lu gën a danse ordre mooy ab sëriñ sëñ bi mhm. waaw laamatu loo xam ne war nga fas yéene ñun da ngay sor mbubb xam ab sëriñ Sénégal dañuy ab sëriñ da nga koy yombal da ngay sor mbubb ñëw toog nit ñi dañoo war a yeewwaat bu baax amul a baax a baax te ñun nit ñi ñoo nit ñi ay xam-xam ñuul ay nooraaniyu ah, day tudd ay sulmaan yu ñoo ñun loolu lañ gën a gëm sax boo waxee ñun man ay alxuraan dafa yeex alxuraan nang nang man kuy sol xonk nang nang la yu gaaw xam ñoo sonal seen bopp mm-hmm. ñoo sonal seen bopp mm-hmm. waaye nag ku wàcc ànd mm-hmm. bu jàmbor mooy loo xam du fi jóg mukk jullit alxuraan mooy mooy ci laayam na delluwaat si alxuraan ñaan yàlla xool ko ko a taxaw mosa waaye nit ñi bopp waaye nag bu dëgg yàlla ku jaar fa nga daan jaar xam-xam mi ngi fi ba léegi nii mhm. alxuraan jii nga dégg naa ñu gaaw a jàpp man dama si dafa nit ni ko bu yàlla balaa waxtu wi heure am li bëgg mhm. ndax dama ko xam dama xam fa ma si jaar mhm. loolu la nit alxuraan a ma wàcc alxuraan muy saafara bépp euh, jàngoro yu a ba wuma si dara léegi nag loolu ko wax ñun a julli nag loolu ñu daal ñokk suñu bopp ah ah naa fi kitaab mi seen alxuraan ba wu dara Hmm? te suñu borom bàyyi wàcc ñen fi ñoo xam ne moom dara ëmp si dara lënt leen si hmm. man nag alhamdulilah rabbi sant naa suñu borom bu baax a baax ndax baqara bu naa dara ëmp ma si hmm. waaw ba jàng ko mokkal ko tari ko yëpp ma si loolu dama ko gëstu aay bu nekk ma xam njëriñ la xam lépp lu si aju

ok alhamdulilah ñoo ngi ñaanal Sénégal suñu borom def fi jàmm képp koo xam ne euh, dañ ma seen ngañu lépp loo fi sàkk yàlla nga suñu borom saafara képp koo xam ne say mis ayoon not fajo yàlla bu ñu suñu borom wanale waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf